c'est la référence. kaddu euh, gi euh, di àddoo fii ci studio Alioune euh, Momar Lo mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi nag dana ca bokk ab janoo taskatu xibaar yi la ñu doon amal ñoom ñi di jàngalekat ya nekkee ci université du Sine Saloum ñoom nag nee nañu jamono jile daal seen boolu muñukaay dafa fees te loolee nag dara waralu ko lu dul yorin gu boñ gestion. gu lëndëm ak it nag ñàkk joxe gëdd goo xamee ne moom recteur ba moom la dëkkee ak ñoom ca lu ni mel daañu ca dikk ci njëlbeenu xibaar yi ak Cheikh Babacar Dieng ngir gën a yombalal askan wi wàllum tuurum mbalit mi ci quartier yi nga xamee ne itam ne woto mbalit yi mëne su fay dem waaye itam nag ngir fexe ba Kaolack gën a soppi aw xar tax na nag ñii di waa UCG yi dal di tabax nag ñaar fukk ak juróom ci ay point de propreté waaye itam tàggat lu toll juróom fukk ci ay ndaw ngir nag ñu mën di garder yooyu les sites loole itam daañu ci dégg Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ab ndajeem diisoo ak sottantey xalaat moom nag lañu doon amal rek ci wàllu mbay mi loolee itam nag mi ngi doxoon ci diggante opérateurs yi producteurs yi agro industriels yi ak ñii di waa Propac ci rek nag nees mën a def ba boole seen i xel ak seeni ay doole ngir nag njënd njaayum gerte bu atam ren jile mën a jaar ca yoon loolee itam su waxtaan wa daañu ko dégg ci euh, ndimbalal noix euh, bi yaay bu li lépp yembe mbokk yi daañu ca teg xabaaru euh, bitim réew ak Alioune Badara Diop tàggat yaram gi ak Serigne Moussa Kane li ci yéene kaay yeeg El Hadj Oumar mooy buural xibaar yi mu nekk li gën a fës ci ponk yi neskis ñu indi ci faram-fàcce. Le ci kàddu gi euh, fego ci ak Haj euh, Libas euh, Mbay ci wàllum xarale ji wàllu dem ak dikk nag lañu koy dooree lii di nag jóge Saam ak Kaolack daal di ñëw nag ci dëkk bu sell bii di Medina baay wala sax nag dem pencum Serigne Bassirou Mbacke ñii di dawalkatu Jakarta yi nag dañu koy xalaat xalaataat ko te loolee nag dara waralu ko lu dul rek ay yoon yu bon ba tax na sax nag ñoom borom vélo yooyu nekkee ca Saam angle 22 ñu ngay sàkku nag yëmbal ci meeru ak Kaolack bi reportage Alioune Badara Diop ah ah. jógee sàmm ñëw Medina Baye doon na jafe bu boo xamante ni dawalkatu jakartaay ñu ngi koy jànkonteel ci jamono ju ñu toll rawatina ñi nga xamante ni ñu ngi nekk fii ci diwaan bu sàmm nekk ci arrêt yi rue 22 laaj bi samp mooy ndax sàmm moom dañ ko fàtte ci biir diwaan ab du Sadio. loolu moom pour ñu wax la francement lu ñu métti lu la fii soo fi yebee pour dem na Baye rek c'est tout à problème da nga ay pax tali bi baaxatul tali bi moom wax dëgg yàlla moom pax kese la du tali pax la ndox la. bari na ndox bari na pax daaw nag waxoon nañ ko fi dawaati ya wax nañ ko fi Alfayda ñëwoon na fi tamit wax nañ ba sonn ba tey nii amul benn satisfaction nag dañoo xamul nag ndax saabu bokkul si Sénégal wala lan dem penc ma bi tamit metti na fii foo munta jaar fii tali Kaolack Kaolack moom amul tali Kaolack moom amul benn tali bu baax même route nationale bi baaxul. kii ab naataangoom la di wuyoo ci tuuru Habib Dramé di dëggal kàddu yi ni mel wante tamit dellusiwaat na ci jafe yi nga xamante ni. ni dañ koy jànkonteel ci tali bu bon. waaw xam naa ne métti rek kaw ko nag rek dèjà dafa doy comme stress dèjà bu gisee seen yoon bi nii lépp lépp lépp ay paax la xam dafa yéeme nga tabax tali tamit te defoo ay canal du moment où da ngay dem gis foo xam ne dañ koy raax dañ koy raax ba pare bàyyi ko noonu ndox mi du am fu mu jàll kon sûrement que yàlla ji bu tawee ndox mi day taxaw ma jàppoon ne instant normalement solution bi benn solution moo am bi saam li tali yi ko wóor yëpp yëpp ay pax ay pax la def Ibrahima moom di addu si ñàkkum compréhension bi ñu faral di nemmeeku ak seeni client ci waxtu bi ñu toll non loolu day am sax ndax yenn saa yenn saa sax maanaam dasa julaay bi ba oto mu dugg ci kàmb ci santam nekkul lu mu mun ta ñàkk yenn saa yeb client sax mu dem di seer te amaana bu nawet ba fay deux cent sax gars yi laa yóbbu xanaa dañ jëm ñoo jàppale comme bëgg nañoo liggéey may ci leen gisagum leen ngeen mën a jàpp ni daa ko ngeen jàppale ñu jël wax dëgg yàlla ndàngaan bokk na ci dëkk yi nga xamante ni ñoom lañ gën a ràññee ci wàllum dawal jakartaa wante nekk tali bu bon moom fii la fekk baax lii de mooy kàddu dawalkat jakarta yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci diwaan bu sàmm ci arrêt rue 22 ba tax na ñu ngi ñaax kilifa yi nga xamante ñoo ŋànk mairie bu Kaolack ndàngaan rawatina seen maire bi di Serigne Mboup ñu jàppale leen ci wàllum tali. jaajëf Alioune euh, Badara euh, Diop euh, ci jamono jooju nag ngir gën a wattu rek wàllum cetu dëkku Mbossé Kumba jigéen bile tax na itam ñi di waa UCG tàmbali ca amal nag liggéey bu am am solo muy nag daal di tabax rek ñaar fukk ak juróom ci ay point de propreté muy nag ay barabu turekaayu mbalit yoo xamee ne dafa méngoo ak jamono UCG ak seen ak liggéey waaye itam nag initiative bu ni mel ak la lambool eh, ci bile reportage yu Cheikh Tidiane Diagne. ngir gën a seetal dëkk bi di diwaanu Kaolack UCG kër gi nga xamante ne moom la ñu dénk fànn boobee nag dal nay indi li nga xamante ne moom moo di initiative bu bees ngir daal di samp ay barab yoo xamante ne dañu koy tabax di fa def mbalit mi li nag mu ngi nekk ci witu kanaal yi wala yenn gox yu ay sën nekk ñaar fukk ak juróom lañ ci tabax fii ci biir commune bi daal di ki samp ay bac à ordure def ci wet gi tamit ay poubelle ak benn gardien boo xamante ne moo koy saytu yi ci gën a te ñu tabax ko ba noppi ñu ngi koy seen ci kanalu Medina Mbaba bi ak kanaal gi nga xamante ne moo jëm Passoir jàpp diwaanu Léona Mamadou Moustapha Sy moo yor liggéey bi ci biir kuréel gi nu mel. parce am na kàr automatique mu la fa dugg doomu taal ñuy installé point de propriété léegi bu ñu installé point de propriété en ce moment ñoom mën nañu indi mbal bi si point de propriété même bu ñu gisul automatique bi sax mën na ko fi xamante ne nag dañu ko daal di arrêté askan wi ñoo doon jàmbat ne dafa jege lool li nga xamante ne moom moo di seen i kër ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Descos daal di def seen liggéey lu nu mel tamit waa UCG nemmeeku nañu ko ci waaye nag bu ñu sukkandekoo ci ki ñu dénk liggéey boobee nee na taxul ñu am benn jafe-jafe. du ñëpp la ñu arrêté ah parce que am na xam ne carrément dañ leen teg foofu fu ñu autorisation mais xam naa ne avec euh, notre coordinateur monsieur Diatara mu ngi si incha allah bu neex yàlla dinañ teg point bu fekkente ne taxawal nañu ay point de propriété fi nga xamante ne moom moo di ci Kaolack am am na yenn quartier yoo xamante ne nag ñu ngi fay séen li nga xamante ne moom moo di ay mbalit ba léegi foofu nag UCG nee nañu di leen fa àggalee liggéey bi nga xamante ne door nañu ko. parce que ñun dañoo ñëw fi pour setal dëkk par rapport Kaolack nu mu meloon ak léegi boo xoolee bokkutul bokkul. mbalit mi ci diwaanu Kaolack jamono ji nag am na ñu partenaire yoo xamante ne ñoo koy jël di ci liggéey yeneen i liggéey yoo xamante ne dafay soxal lépp lu ñeel wàll ka développement bu ñu sukkandekoo ci waa UCG Mamadou Moustapha Sy di ñu xamal ne dinañu recruter tamit lu yàggul fukki doomu aadama yoo xamante ne ci liggéey boobee la ñuy bokk boo ñëwee nag fi nga xamante ne moom moo di seen siège bi ñuy def seen bagage yi ci kaw tali bi jëm Cœur de Ville ay bac à ordures yu bari ñu ngi ko fa nemmeeku ak i camion yu bees yoo xamante ne dafay ñeel liggéeyu mbalit. Euh, ci wàllu euh, liggéey ak taxawaay euh, bu ni mel Cheikh Tidiane Diagne lañ ca jublu ak it nag ni ñu bëggee askan wi jëfandikoo ko ngir nag yombalal leen seenu ko liggéey loolee lépp nag moom ma yore wàllu wa dikkaat na nee na itam nag daañu tàggat ay ndaw teg leen ca barab yooyee ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Diagne. point de propreté initiative du suñu coordonnateur la dañoo jàpp ne point de propreté point la tali bi fi ñëw rek boo bëggee sotti mbalit bi da nga jël mbalit bi yóbbu ko ba foofu mais chaque point de propreté day am gardien matin après midi et la nuit boo xam ne carrément population bu indee mbalit bi mu ñëw leen di orienté pour ñu sotti ko mbalit soixante lañ teg ko pour ñëw rek foofu ngay def mbalit bu feesee rek ñoom ñi fa nekk dañuy woo oto mbalit bi pour jël amul arrêt matin soir et la kon léegi dootul jar oto bi di wër quoi. waaw am na xat yoo xam ne carrément déjà oto bi du fa mën a du fa mën de propriété fii lañ def. waaw si Kaolack léegi euh, askan wi lan lañ war a comporter woo. voilà askan wi waroon comporter ñoom kese ñoo ñu mën a jàppale. loolu moo tax ñu nekk nii dañoo bon boo xoolee la plupart euh, fu ñu koy teg maanaam boo xoolee les caniveaux yi bu ñu demee foofu dañ koy teg foofu boo xam ne euh, bi amul accès pour dugg foofu foofu lañ koy teg ak yeneen angle yi quoi pour des fois population foo xam ne Karma boo naanee sa kaas café boo ñëwee rek mu nga taxaw léegi liggéey kañ lay démarrer comme canal gargain yi fa war a nekk. non si on a déjà tali Cheikh Ndiaye Baye Fall boo am na ñaari point de propriété bu fa nekk am na ñu jàppale bu baax baax ñun ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. kew euh, nga ca taaxum kaw ma ñu euh, dupe Cheikh Imam Assane Cissé ñu wéy ci euh, xibaar yi daal di àddu nag jëmale ko rek ci jafe-jafe gu aju ci wàllum njàng meek njàngale mi maa ngi leen ko doon junju jàngalekat yi aju ci SAES te fare nag ci université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack bi ñoom nag waxtu wii seen ko naqar foo ko natt rek weesu na ko te loolee nag la ko jur mooy nag doxalin gu ñaaw goo xamee ni moom recteur ba moom la. dëkkee ak ñoom ba tax na itam ñu amal ci ab janook taskatu xibaar yi ngir bécci seen ak naqar waaye itam jébaani jafe-jafe ya Cheikh Ababacar Dieng ci buntu rectorat bu université Sine Saalum Alaaji Ibrahima Niass Baye fii la jàngalekat yi daara ju mag ji taxaw amal fii janoo ak taskatu xibaar yi naqar yu bëri la ñu bécc ci taabal ji jàpp nañ ne nag bërëb bu sàkkukaay xam-xam bi nekkee ci Sine Saalum li ñu ko jagleel ci wàllum koppar dafa néew lool ba jéggi dayo Mohamed Sall moo yor kàddug SAES bànqaas gi féetewoo ci ISEN at wu jot ministère des finances dina toog liggéeyaat budget bi war a dem ci université yi génne lu tolloog juróomi téeméeri millions ci suñuy koppar dem ci li nga xamante ne mooy université yi ci loolu li ñu seetlu mooy téeméer ak ñaar fukki millions ci loi de finance bu mujj bi moom moo dem ci UFR yi yi nga xamante ñoom ñoo war a doxal pédagogie bi te téeméer ak ñaar fukk yooyu noonu buñ ko xaajee ci ñeenti UFR yi UFR bu nekk fanweeri millions lay am te loolu néew na néew noo koy def lii nag indi na ay gàllankoor yu bëri ci seen nekkin ñoom jàngalekat yi waaye it wàññi wàññi na bu baax xam-xamu jàngkat yi ndax gëstu yu war mënuñu ko am lépp nag dara indiwu ko lu dul yorin gu bon gi nga xamante ni wax nañ ne moom lañ yor daara ji. te recherche yooyu tamit lu am solo la ci université bi lu am solo la ci gox bi lu am solo la ci xale yi mais lu am solo la ci Sénégal ci loolu bu ñu tënkee ba joxe ay échéance pour que enseignants yi mën a jot li nga xamante ni moom la ñu war jot ci allocation pour mën a doxal seen recherche yooyu madame le recteur du ko respecté moom moo war a defar mandat yi ñu respecté loolu fay à temps pour que enseignants yi mën doxal seen recherche ni mu waree li ñu gis mooy fin juillet la ñu waxoon fin juin d' abord pour li nga xamante mooy prime de recherche yi ñu wax fin juillet pour li nga xamante ni moom mooy voyage d' mais ba tey jii ma lay wax ni amul benn enseignant bu ci jot benn ci allocation boobu noonu te kenn mënul wax ni fi mu nekk nii fixé nga ak sa partenaire yi nga war a liggéeyal pour mën a doxal recherche boobu ndaw suy jiite université Sine yi liggéey ak moom mere nañ ko lool ndax ñi ne daal toogaayam rafetul dara li tax respecté wu leen moo di ko enseignant yi yónneewee ay correspondance que mu doon tontu du ci àddu du ci yëy yàb te loolu doon na loo xamante ni enseignants yi ñu ngi koy ñaawlu bu baax yokk nañ ci seeni kàddu it ne ñàkk teggin gi muy ñàkkee teggin ñenn ci liggéeykat yi fii it doon na lu leen métti lool bañ na xarlu ko dem na ci ba am na suñu benn collègue boo xamante ni daf ko nii doo jël parole doo wax ci réunion boobu loolu tamit doon na loo xamante ni ñaawlu nañ ko lool lool sax bi ñoom waa SAES di yëkkati seen i kàddu ci buntu rectorat bi amul benn kilifa boo xam ne mu ngi woon ci bureau yi jaajëf Cheikh Babacar Dieng ñu euh, des ba tey nag ca googule mbir la gën a tàgga témbeel nag mbir ya mooy ne itam ne conseil d'administration amatu fa ñu daal di fay taxawal nag ñoom jàngalekat ya ab conseil académique bu ko wuutu ngir nag mën di doxal wàllum gestion administrative ba ak financière ba waaye nag mu mel ni ki loolee daal neexul euh, recteur ba benn yoon ndaxte nag fullaalu leen te it nag dégluwu leen Mouhamed Sall moo nekkoon seen ko porte ñoom waa SAES e section USSEN mi ngi ci micro Cheikh Babacar suñu université bi depuis bi mu tàmbalee liggéey en 2019 ba léegi les mêmes problèmes c'est-à-dire jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkonteel boobu ba léegi dafa gën a yokk te dafa nar a yàq li nga xamante ni moom la ñu jota ci suñu góorgóorlu ak su néew defar ci wàllum formation ak ci wàllum recherche fii ci zone bi mu nekk te loolu mi ngi nañ ko résumé ci ñaari pàcc bi jiitu mooy li ñuy wax gestion administrative et financière bi nga xam ni baaxul santul yàlla xamante ni moom la ñuy woowee fii conseil académique muy organe bi nga xamante ni moom moo war a doxal lépp loo a ba léegi ñu ngi ciy daw mais ba léegi taxawagul bu teyee ñu ne ñu proposé leen membre bu subaa ñu ne ñu ci bu gannaaw subaa kenn xamatul ba xam mu ngi doxam doxul donc boobu ba léegi gisaguñu loolu te membre yëpp daanaka ku ci ne ki waroon proposé proposé na donc li tax mu war a dox lenn lu dul li nga xamante moom moo nekk ci kaw muy madame le recteur moom moo war a góorgóorlu ci defar acte yi nga xamante ni moom moo war a doxal organe boobu léegi nag ngir mbir yi dox organe boobu nekk fi ñu taxawal conseil académique conseil académique bi nag li ñu seetlu mooy saa yu liggéeyee ba pare ba tënk madame le recteur du respecté mukk tënk yooyu conseil académique tënk te tënk yooyu noonu lépp ngir mbir yi dox ni mu waree la boobu ba léegi mën nañ wax ni lépp luy affaire administrative day yéex wala mu taxaw du dem fenn lépp lu ñuy wax mooy mbirum finance bi war a dem ci li nga xamante ni moom moo tax ñuy créer université muy pédagogie mbirum néew na néew goo xamante ni kenn du xam sax nuñ koy doxalee li ñu seetlu ci pàcc boobu moo di madame le recteur dafay bëgg di joxe wala di doxalee ci ni nga xamante ni conseil académique waxu ko xalaatu ko te loolu ñu ngi ci am pour firnde fermeture université yi nga xamante ni le 23 bi passé juillet ci la ñu tëj université yi te loolu bi muy bind communiqué bi di ko yónnee fekkul conseil académique toog siège pour wax ci loolu waxuñu ci yéeyu ñu ci yàbbi ñu ci mu génn benn communiqué xëy suba teel ñëpp jot communiqué kenn xamul nu def te boobu fekk na ay professeur ñi ngi programmé woon jeexal ay d'enseignement fekk na ñu ngi programmé woon pour def ay examen pour mën a tëj semestre boobu noonu ba léegi semestre bi mënul tëj te ñi ngi wax naan dañoo bëgg fexe ba nga xamante ni année académique bi normalaat te ñi ngi gis ni année académique bi fi mu nekk nii ci doxalin woowu mënul normal. mënul euh, normal ka nga xamee ne itam ne mooy euh, coordonnateur euh, SAES boobee moom nag fellu na ko waaye itam nag daal di dëggal situation bu métti ba ñuy dund di ko daj nag El Hadji Oumar Ndaw ak Cheikh Babacar Dieng. su ma tënkee ci wolof mooy recteur joxuñu gëdd ñun parce que booy liggéey ak nit respecté ko boo joxee sa kàddu da nga koy fonk doomu aadama amul lu dul kàddoom munoo ne yéen ay université bu bees ngeen ay ndaw a fi nekk te ndaw yi pour ñu avancer il faut ñu am ay article article yooyu lu ko mën a avancer loo mooy il faut ñu def recherche ci war a dem defi recherche boobu nga war ko fexe mu mën a am biem à temps pour mën a dem defi recherche waxtaan nag ay partenaire am bañ d'accord aéroport pour nga am billet boobu mu të te ñëpp xam nañ ne bii avion boo yéexee benn fan mën na passer di simple au double ou au triple boobu la ay collègues di dund actuellement mënuñoo dem seen voyage d'étude tënk nañu ak seen partenaire ba tënk dat ndaw si defarul mandat ndax nekku fi bureau ma ngi nii yéeg leen du ngeen ko gis te feebarut amul not intérimaire dara luy wane ne nekku fi donc ñun situation bi ñu nekk dañu rus sax toog di ko wax loolu la ñuy dund ci ISEN. yéen a ngi déglu yi ci Alfayda ñu wéy ak euh, xibaar yi euh, ba tey bi la yoon ca geneen mbir rek ca la ñuy addu euh, nañu baaxoo nag di ko defee ci wàllum gisaane taw yi ak météo noonu itam nag la ñu ko defaatee ci lu soxal nag taw yi ñu mën a séntu ci diwaan bi waaye itam nak daal di koy méngaleek taw yi jàll ak yeneen i diwaan yi kii di chef service météo bu Kaolack bi di wuyoo ci Philippe Auguste Moundor Sène jokkoo na ci téléphone beeg Cheikh Tidiane Diagne. depuis le 27 mai ba léegi mi ngi enregistré taw trois cent quatre vingt dix sept millimètres ci trente six jours de pluie maanaam fanweeri fan ak juróom-benn la jot a taw ci bu ñu xaymaa ci lu ñu jot am ñi ngi am trois cent quatre vingt dix sept virgule deux donc li ñuy mën a xaar daal ak li ñuy mën a moytu mooy surtout événement extrême yi maanaam ñu am ay taw yoo xamante ne day bëri lool ci ay waxtu yu a néew donc nga xamante ne xëy na mën naa causer quelques dégâts ci tool yi mais surtout aussi pour ñu nekk ci ville yi pour risque d'inondation yeeg yooyu. ban léegi tey. boo xoolee taw bi gën a rëy bi ñu enregistré ci Kaolack ñu ngi ko amoon euh, le trente juillet bi passé donc mi ngi tawoon euh, cinquante trois millimètres donc amaguñu taw yu dépassé cent millimètres jëm kaw comme niñ ko gisee woon ci dakaar fan yi la ñu génn avec cent vingt six millimètres ak taw yi amoon euh, ci semaine bee ñu génn ci diwaanu maatam ñi nga xamante ne amoon nañ cent vingt quatre millimètres donc tawaguñu taw bu rëy parce que même cinquante trois bi taw ko rek ci waxtu daf ko taw maanaam ci benn durée boo xamante ne moo xaw a gën a gudd ah, donc tawagul la taw bu am doolee boo xamante ne mën nañ ko méngale ak ay situation extrême donc trois cent quatre-vingt-dix-sept millimètres yi comme ni ma ko waxee nawet bi jeexagul def na septembre donc ñi ngi xaarandiwaat peut-être li ñu toll wala li ko gën a yées tuuti parce que weer bu nekk dafa am climatologiquement loo xamante ne loolu la war a am ci ay taw moo tax ñi mën a wax ne weer boobu am na excédent wala amul excédent donc ñu ngi continuer di xaarandi ay taw ci weeru septembre bi incha allah. ñu war am ci quantité de pluie. donc boo xoolee normal bi ñu war am ci quantité de pluie ci weeru septembre mi ngi toll ci cent cinquante neuf millimètres taw bi dina am excédent ci weeru septembre mooy ñi ngi xaar ay taw quantité yoo xamante ne dina ëpp cent cinquante neuf millimètres yi nga xamante ne moom lañ doon faral di xayma ci diggante fanweeri at yi ñu génn. Euh, Philippe Auguste Moundor Sène euh, ku wax itam nag wàllu euh, taw yi yàlla foog nag nga daal di xalaat wàllu mbéy mi wàllu mbéy moomee nag rawatina bu soble bi laaj nag ay xalaat ngir itam daal di koy fàggul ay solution ndax nag cheray ak jafe-jafe eh, bi ñu ci nemmeeku waxtu eh, wile eh, kii di Cheikh Tall nga xamee ne mooy njiital opérateur ak producteur yi ci diwaan bi moom nag jéem na cee tontu indi ay leeral ci jafe-jafe bu ni mel gannaaw laaju Cheikh Tidiane Diagne. waaw xam nga affaire soble moom ku ne xam na soble bi. Sénégal lañ koy béyee. ma ma ko béy presque ay pourcentage yu am solo autosuffisance jigéen nañ ko euh, période importation bi sax bàyyi nañ ko actuellement nii moo tax xëy na transition bi mooy waral mu seeraay bi nii bu ma jàpp naa ne fii ak semaine yu néew te soble dina wàcc te xool nga aussi ferme agricole yu ñu dem ANIDA bu Kër Madiabel yooyu tamit solution la pour affaire culture horticole bi surtout ay soble yeeg yooyu ndax gis nga foofu ñu am fa fukki tool yu mag yoo xam ne fukki xale ku nekk am seen néeg ñu am fa seen case bu mag te yooyu am fa goutte à goutte am fa seen forage am seen lépp yooyu buñ ko wasaaree mu tas ci réew mi dina nekk solution bu mag ci affaire agricole loolu yaakaar naa ne diir bu gàtt ndax programme ministre de l'agriculture loolu bokk na si yooyu dinañ ko fàtt ngi def céréales yëpp nag sorgho maïs ñebe gerte arachide bien sûr ak spéculation yu mel noonu daal soble ak coow li ci am yëpp warul ko gën a yéen baykat yi producteurs yi ngeen daal di kiy soobu yéen it pour nga xam ne rupture bi ñu ciy wax ba am yokkute njëg yi mu daal di wàññeeku soble récemment bu nekk xam ne ci boori tabaski bi rek man jënd na def ñu magasin yu ay fu ñu koy denc ak genre mel noonu mais jëlee naa ko ma saako 6 000 7 000 man mujj ma ko jëndee 10 000 ba tey ji mu cher ni te naa ne cher bi diir bu gàtt doon njort naa ne léegi mu affaire bi régulier wa ku nekk ne xam nga Afrique ak fu ñu xamante ne Sénégal boo toogee 25 ans rek presque population bi day xaw a bëgg a doubler donc yooyu faut nga anticiper Sénégal li muy béy actuellement ni ceeb 40 ans ci gannaaw bu ñu ko amoon su autosuffisance complètement la ñuy am cela veut dire que kon luñ gën a def gën a yokk jumtuwaay ci mbéy mi jiw yi gën a impliqué tamit jeunes yi pour ñu gëm ko mooy solution ça Sénégal dañu bay soble ay na atteindre cent pour cent autosuffisance en oignon mais jigéen nañ ko donc loolu tamit bokk na ci ñu am matuwaay ak jumtuwaay yoo xam ne pour ñu mën di ko denc ay magasin yoo xam ne day am genre frigo lay ak yu mel noonu te gis naa ñu ko doon wane xay na pour mu gën a yaatu ndax denc bi mën a gën a yaatu euh, Cheikh euh, Tall gannaaw nag euh, distribution lii di semence yi ak intrant yi ca diwaanu Kër Madiabel wàllu ma séddale ba ñoom nag amal nañu ab toogaay càmbar def bilan ba jëmale ko rek ci wàllu wu ni mel njiit la Barham Gueye mi ngi ci micro Noa Biaye

ànd ak hectares yi 30 tonnes la woon mais li ànd ak hectares yi 5 la li ci des dañ ko jox waa Kër Madiabel yi ñu tuddee ko semence vivrière donc aussi amoon nañ 10 tonnes ñebbe au niveau Kër Madiabel on a 4124 personnes Sam da am 1669 na am ci 1012 yi nga xam ne moo ci gën a ndaw daal sañ ci Abdou Bigué moo ci topp gannaaw lan Sarr après Medina Niassène ak euh, Medina Grande Mosquée xawoon na jafe parce que séddale yombul xam nga commission culture ñu waroon ñu dolli 40 tonnes mais heureusement 20 lañ am mais nañ ko sant yàlla parce que am na dëkk yu ko amul rajo bi mu ñëwee dama woowaat les de quartier ne nu ngeen ko bëggee ñu wax ma ni ñu ko bëggee man leen man daal mu ngi noonu fexe naa ba mu ñëw ni ngeen ko bëggee noonu lañ koy defee alhamdulilah seetlale bi jaar na yoon waaye nag li ci ëpp solo mooy béykat yi nañ ci gis seen bopp prix subventionné amul séddale te woowuñ la ne la kaay ñu réunion pour xool yaa a le sous contrôle aussi du commandant moo tax transparence am na ci ñu euh, des ba tey nag ci wàllu euh, mbay mi euh, jóge ko nag ca diwaanu Kër Ma Jabel dikkaat nag fii ci diwaan bi projet bi di Propac ca seenu ko taxawaay ak liggéey bi ñuy amal ci zone centre bi waaye itam nag projet beeg fa mu soqee lu ni mel nag kañu ko dénk muy chargé de mission ba moo ci doon dikkaat gannaaw ab atelier bu ñu doon amal fii ci diwaan bi ci wàll wi Mor sekk mi ngi ci micro noir bi ay rapport bi mooy ñun li ñuy gën a def tàggat mooy li tubaab di wax naan baliser le terrain parce que damay def benn genre historique bu ndaw rek wax li nga xamante ne xëy na moo jiitu lii nii ndax dafa am agropole agropole bu ñu koy wax ay plateforme industrielle yoo xamante ne dañ ko war a mettre en place dans la zone centre am na bu ñu tuddee agropole centre am na agropol nord am na agropol sud ñun nag ci fi ñu intervenir mooy agropole centre bi am na yeneen ONG ñun nag ñoo nekk ci trois départements yi Nioro Foundiougne ak Kaolack ni ñu nekkee ci trois départements am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi nekk ci yeneen gox yi comme tey boo demee ci zone Diourbel bi di nga fa fekk ay Agri nga dem ci zone euh, Kaffrine bi nga fekk fa ay Essenfesse ak yi demee noonu donc ñun nag dañuy liggéey ci juróomi filière prioritaire ci juróomi filière yooyu noonu li nga xamante ne moom mooy gerte ku wax bassin arachidier ne gerte su ma jógee ci loolu ne céréales yi dañuy liggéey ci ñaar yi mooy ci mil bi mooy dugub bi ak ci mboq mi bu ñaar yooyu weesoo dañuy liggéey ci xorom si dañuy liggéey itam ci li nga xamante moom mooy maraîchage am na aussi anacarde yoo xamante fédération de producteurs d'anacarde dañ leen di accompagner aussi à dafa am ay axes yi ne ci ñun ci loolu la ñuy bu dëgër boo xamante ne agropole yooyu bu ñu installé wu ñoom ñu mën a liggéey ak ñoom ci anam bu mu gën yembee ci anam boo xamante ne ñoom dinañ ci gis seen bopp ñoom ñoo xamante ne ñoom ñooy principal acteurs yi parce que tey lu ñu ci mëntu wax production bu amul usine du tàkk consommateur du lekk donc ñoom kon dañoo nekk boo xamante ne maillon bu ama am solo boo xam dañ leen war a dëgëral ci fànn yëpp colonisation yi nag bi mu existé am na ci yoo xamante ne daanaka def mu dikkee ci bokk gouvernance gouvernance bi nag mooy tey taxawal leen àsak ñoo am disposé am ay outils yu leer nañ yoo xamante li ñuy def day am benn traçabilité seenuk euh, ndaje euh, moomee nag la doon ponk euh, waxtaan bi mooy nag la tuddee contractualisation durable muy ab jàppal ma jàpp boo xamee ne dafay dox ci diggante opérateurs yi producteurs yi industriel yaak ñii di waa Propac ya di ab contrat boo xamee ne kenn ku nekk itam am na wàllu wu mu ca war a béy bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Diakhaté ma fa teewaloon ñii di industriel ya mi ngi ci micro bi Noabiaye. dañoo ñëwoon tey woote Propac Propac muy benn kuréel boo xam ne waaye nit dee ñoo fa nekk piloté ko mu nekk benn liggéey bu am solo bu ñu leen joxoon ci wàllu contractualisation ñoom dañ leen santoon benn liggéey que ñu dem ci àll bi xool baykat yi nan la ñuy def ba leen en société coopérative coopérative yooyu dañu war a liggéey ak ñi ñuy def transformation ci wàllu contractualisation ndax ba ñu tasee Radisson ci lab ba di wax wàllu agropole dañ ne kat mbay mi ñun transformateur problème bi ñu am mooy matière bi dafa doyut ñu ne ndax doyut ñu ne ah mi li nga xam ne moo fi meññee dëgg dëgg dëgg pour ñun ñu mën koo transformer jariñoo ko amu fi ah ñun ñu waroon loolu ñu ne ah béykat yi kat dañoo gis ne ñoo bari ay jafe-jafe ci seen liggéey dañu am jafe-jafe engrais am jafe-jafe pour am euh, jiw am jafe-jafe ku leen jàppale ci matériel agricole te loolu nag jafe-jafe yooyu ngi ciy jéego waaye ñun ñuy def transformation dañ cee war a jàpp ñu ñu jox li mu soxla ci engrais jox li mu soxla ci jiwu ba moom mu mën a béy am rendement yu baax bu paree loolu mu jaay ñu ko aussi ñu mën a matière première bi nga xamante nii moom la soxla loolu day tax béykat bi dootul xalaat fu muy jëlee engrais dootul xalaat aussi fan lay jaayee ndax boo leen dee fàttaliku 2010 béykat yi dañoo béy ba pare amuñ fu ñuy jaayee ñu yóbbu usine ba mooy bu contrat amee mu wër que ni man miy def transformation signé naa contrat loolu la muy béy soxla naa ko te mën naa koo jënd ba signé moom contrat ba banque yi taxaw mën cee jàpp loolu yaakaar naa dina tax béykat bi xelam dal ndax kii béy moom bu sañoon bu ñoree rek day jaay te man miy jënd yàlla mën naa def au moins moyen jënd noo lépp ndax damaa fas yéene liggéey at béykat bi moom dafa bëgg a jaay ci benn weer ci ñaari weer mu nekk lu am solo mu nekk lu am euh, solo euh, déggoo boobee nag ñu doon euh, mu gën a dox a antu faw itam nag mu daal la ñu tuddee waajtaay ak gunge waaye tam nag lu soxal euh, fexe euh, jëmmal ay société euh, coopérative bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay kàddoom moom Ousmane Diakhaté mu ne nag projet bii di PROPAC dafa war a gën a dooleel opérateur yi ngir ñu mën di jënd gerte gi ay kàddoom ba tey ak noa bi yaay. li ñuy xaar en tant que président SOCAC mooy que ñun ñi nga xamante ne ni dañoo war a dem ci agropole am ay industrie yoo xamante ne dañoo war a transformation li ñu mooy bala investir ñu xam ne tey am na ay kuréelu béykat yoo xam ne organisé wu nañ te am nañ matière ak qualité matière ba nga xamante ñun moom la soxla parce que day metti tey nga ne dañuy jël ay milliards dem lépp ci banque bi jaay sa kër jaay sa lu ne di investir te yow amulaguloo matière première bi nga xamante ne tey boo demee moom ngay tax parce que ñun bu matière première amul du ñu liggéey donc ñun li ñuy ci PROPAC bi mooy ñu fexe ba fépp fu béykat nekk ñu lëkkale ko ak boroomu béykatam ba mu créé li naan société coopérative dina tax tey man mi am sama usine dinaa ma def sama estimation xam ne man matière bi ma koy jox ña nga ne prépare organiser na leen mu nekk ay organisation yoo xamante ne nii xam nañ ñu leen seen seen xam nañ ni ñu toll xam nañ la ñuy béy nu mu toll xam nañ tamit li ñuy xaar ci ñoom ni ñu toll donc ñun en tant que SOCAC dañuy jàpp ne lii moom mënut a ñàkk parce que mënuloo toog rek di xaar mbéy mi ñëw ngay dem ci marché luuma ba naan ngay ut matière bis bu bi jeexee sa usine day tëj donc lii moom mënul ñàkk dafa nekk loo xamante ne nii tey lu indispensable la pour que suñu partenaires yi ñu ñuy investir dalal suñu xel ba nga xamante ne ni tey bala ñoo def dara xam na ne lañ soxla ci matière am nañ ko parce que ñiy jënd produit fri bi ñu ngi fi. Euh, Fatou euh, Mata Bintu euh, Mbeng ma nga xamee ne moo fa toogaloon nag producteurs yi moom itam nag mu mel ni ki rek kuy dalal seen ak xel ci ne ña yaakaar am atam ren jile ab production boo xamee ne quantité ak qualité lay doon ngir nag daal di mën a satisfaire ñii di l'opérateur yi waaye itam nag ma nga doon sàkku rek ca ñoom ñooñee tey ji Fatou Mata Bintou Mbengue ak Noabiaye ñu tase ak ñi nga xam ne ñooy ñi ñuy wax ay acheteurs ak tey techniciens yi nga xam ne ñu ngi ci mbéy mi pour ñun ñëpp ñu toog xalaat ñu may ñu opportunité boobu ñu mun a échange ak ñoom bu baax pour won leen ne pare nañu pour signer ak ñoom ay contrat mais pare nañu aussi pour fexe ba ñu am gerte gu baax goo xam ne moom la ñuy livrer du am suuf du am xeer bëgg nañ ko te fas nañ ko yéene mais ñoom aussi ñu di leen sas ne nañu respecter seen contrat boo tegee sa gerte rek buñ paree ñu siggi fay la li olof di wax ne tuutte teew loolu tam ñu ngi leen ci soññ ah, te loolu war leen war ñun aussi parce que ñun dañuy joxe en nature maanaam dañuy jox nit ñi intrant producteurs yi nga xam ne man producteur la dañuy leb bu fay jotee ñu fay nature mais excédent bi ñuy dese ñoom ñun dañ koy jënd après jënd boobu nag foog nga yore xaalis ñun war nañ yor xaalis te industriel yi yaakaar nañ leen ci xaalis boobu ñu jàppale ñu ci mais suñu banque yi aussi ñoom ñu facilité ñu ñu am fa xaalis buñ ko gisee ren incha allah yal na yàlla mottali ñëpp fekkee ko te tal ko mais am nañ yaakaar ne daal wax dëgg yàlla production bi ñu estimé nii tey neuf mille quatre-vingt-quinze tonnes yooyu yaakaar nañ mën nañoo am sax lu ko ëpp. projet euh, boobee nag la mu euh, wundu kon weesuwul nag projet de professionnalisation des euh, organisations professionnelles agricoles et agropole centre des ba tey ci wàllu wi jaaree ko nag ci suqali wàllu mbay moomee waaye itam nag taxawal ay xëy projet bii di Agri Jeunes moom itam mën na cay am nag ay résultats yu euh, mucc ayib euh, ca Nioro ndaxte nag Nioro googu ab département la bu am doole jëmee ci wàllu wi muy nag la ñu tuddee département agricole euh, bu ñu sukkandikoo ci kàddu ya DRDR bu Kaolack bi docteur Souleymane Diop ak Noa Biaye. comme nu ngeen ko xamee Nioro département agricole la maanaam ci département Kaolack yëpp Nioro moo ci ëpp lu muy béy projet bi dafa ñëw pour xeex ndóol mais également créer ay emploi jox ko ndaw ñi ba tax na politique actuellement bu gouvernement bi rawatina ministère de l' agriculture et de l' équipement rural def na fi benn projet bu mag boo xamante ne dafa ëmb presque juróomi région rawatina région Kaolack parce que foofu la unité bi nekk ñu naan ko projet agricole xëyu ndaw ñi donc boobu day accompagner jeunes yi former leen jox leen benn emploi donc dana ci def mbéyum dër dana ci def mbéyum horticulture dana ci def euh, grande culture maanaam céréales ak euh, yeneen xeetu mbéyef yoo xamante ne vraiment day indi lu baax rek ci population bi ba tax na wax mbéyum horticulture mooy enrichir en vitamine bool alimentaire bu producteur donc vraiment projet bi en tout cas ñëpp a ngi koy saluer sa état bi impliqué ministère de l' jaarale ko ci ministère des finances pour que au moins yenn partenaires yi yenn bailleurs yi dugal ci loxo. ñu euh, bàyyi Saloum nag daal di euh, xooli ji euh, feneen ay meññeef ay fruits yoo xam ne dafay ñor gannaaw gi nag daanu dem ba yàqu ca diwaanu Casamance mu ni mel nag la ñu bëgg mu jiito euh, Maléguen ba tax na sax naka ñu daal di samp rek ab unité de transformation ca Mandine euh, Mankagne Mouhamed Sagna dem na fa seeti ji leen waxtaan ak ñoom ca googule mbir ci bile reportage. ay ñam yu bëri yu mel ni ay mango darkasak jub seen dañuy faral di yàqu fii ci Casamance ngir ñu xeex li ni mel bu ñu duppee jiito di Maléguen samp ab unité de transformation ca Mandine Mankagne. dañuy transformer les fruits et légumes et céréales. séchage de fruits dinañ def ay confiture di yëngatu nag ci lu bëri loo xam ne mooy meññeefu réew mi muy lu mel ni mango ak darkase loolu suñu activité principale la ci activité yi ñuy def ci mango bi dañ ciy liggéey dix dérivés ci darkase bi dinañ def lu mat cinq dérivés ay nit yu bëri lii daan seen doole ci unité de transformation boobee amal nañu ay coppite ci wàllum transformation filière anacarde le GIE a fait ba yàlla def ñu innové pomme bi mu nekk viande ba tey ñu ci am ay commande defe naa ne bi ngeen di def le tour unité bi gis ngeen viande pomme de cajou bi expliqué nañ leen présenté nañ leen ñi fi nekk di liggéey. du jàtt bile. ki nga xamante ne amaloon na fa ab stage am jot na xamal ni structure yu ni mel am na njëriñ lool ca bët saalum réew mi. am na njëriñ trop trop te tamit ñu ngi valoriser fruits yi nga xam ne fii surtout si Casamance day yàqu lu ñu xam nuñ koy def mais transformation tax na di nga mun a yor fruit bi sax lu yàgg nga koy continuer si année bi di ko jëriñoo te tam nit ñee ngi si lekk nuñ koy defee si céréales yi tamit am na solo lool daal. waaye ñu ngi jànkoonte lay jafe-jafe ngir ñu mën a wéyal seen liggéey wàllum jaay seen produit. li nga xam ne nag moo nekk fii comme jafe-jafe accès bi d'abord accès man ni na bi yàqal nañu lu bëri loolu moom tax na ba lu bëri mënul dox ci suñu nekkaay bi fii beneen jafe-jafe bu ñu am rek mooy peut-être am nañu ay manquement ci équipement yi commercialisation bi problème emballage moo nekk ci réew mi Sénégal sax daanaka surtout Casamance. samp ay unité de transformation yu bëri ci gox goxaan Casamance mën na bokk ci li nga xamante ne na tax ndaw yi ay xëy Ziguinchor Mohamed Sagnan Alfayda FM. xabaar yi bitim réew. yéeg si euh, nañu ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi waa réew ba Badara Diop a foo koy dooree. jërëjëf euh, Ngoone Ndiaye ren xibaar bitim réew ñu doore ko réew bu Mali wax ci wér-gu-yaram ki nga xamante ni mooy may Maïga moom mi nga xamante ni ngurnement nekk foofu ca réew bu mal yi da ko may ab diir ngir kat mu dem faju ji ginnaaw ci feebar bi nga xamante ni mu ngi ko amee di ABC ay coow nag jib na foofu ca réew bu Mali ginnaaw ci askan bi wax naan dañ ko yóbbu fi nga xamante ni mooy réew bu Turquie ñi naan réew bu Maroc li ko waral leen lu dul jéem a xool li nga xamante ni mooy wér-gu-yaramam wante ci jamono ji ñu toll nag mën nañ wax ni wér-gu-yaram ki nga xamante mooy Sogel Maïga moom mi nga xamante moo fi nekkoon jëwriñ ji njëkk ji foofu ca réew bu Mali jamono ji nag wér-gu-yaramam moom demeetul noonu bitim réew Afrique du Sud la dem wax ci grève bi nga xamante ni askan bi defoon nañ wàcc si mbedd yi lée li waral lu ni mel nag du leen lu dul yokkum njëgu carburant bi wante tamit dundu gu cher gi nga xamante ni dañ ko ràññee foofu ah, ci réew bu Afrique du Sud lu tollook ñaari junni doomu aadama yoo xamante ni jotoon nañu wàcc si mbedd yi lée di ñaxtu li ni mel wante gouvernement bi moom ba tey àdduwul benn yoon jëmale ko ci bile mbir ba tax na askan bi moom mer ba futt la ñuy def ci tekkaaral gi nga xamante ni gouvernement bi def na ko foofu ci bu Afrique du bitim réew Angola la ñuy dem wax ci législative yi nga xamante ni mu ngi doon am ci àllarba bu ñu wees ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août atub 2022 li tollook fukk ak ñeenti million ngi doomu aadama yoo xamante ni dañ leen doon xaar foofu ci urne yi ngir kat ñu tabb seen i ndaw yoo xamante ni ñoo leen war a teewal foofu ca pencum ndaw réew mi ginnaaw ci loolu la commission nationale électorale bi moom li mu ngi wax ni ci fan yi néew danañ joxe yële résultat jëmale ko ci élection législative yi nga xamante ni mu ngi doon am foofu ci bu Angola ci néew ci ay fan Thank you. bitim réew ba réew bu RDC Congo wax ci projet ki nga xamante ni mooy Jean-Marc Kabut mbir mi nag yóbbu nañ ko ba juróomi fan ci weeru septembre ba ñu nar dëgmal ginnaaw ñaari ci ay bés ñu doon àddu ci projet yi ki nga xamante ni mooy Jean-Marc Kabul ginnaaw ci yenn ci ay njunjaay yoo xamante ni defoon na ko jëmale ko ci kii di président bi di Félix Tshisekedi moom la ñu làqoon ko jant bi ci prison ba nekk ca Makala ginnaaw bi ñu ko placé résidence surveillée moom nag projet boobule daanu ci àddu ci juróomi fan ci weeru sàttumbar bitim réew jeexali xibaari bitim réew ak ki nga xamante ni mooy président France bii di Emmanuel Macron ginnaaw tukki nemmeeku bi nga xamante ni mu ko doon amal dem ci alxames bi foofu ca réew bu Algérie li gënoon a fës ci tukki nemmeeku boobule bokk na ci jéem a wàccee tension bi nga xamante ni am na foofu ca réew bu Algérie wante tamit dolliwaat li nga xamante ni mooy partenariat bi ci wàllum koom-koom ci diggante ñaari réew yi di réew bu Algérie ak réew bu France ci fàttali nag ki nga xamante ni mooy président bii di Emmanuel Macron dina fa def luy tolloog ñetti fan. Eh, jërëjëf eh, soxna ngoon yi foofu la buure buuree li nga xamante ne mooy xibaar bitim réew yi cant ak ngërëm ñeen leen jaa ngi jëf xabaaru tàggat yaram bàkk bàngook xabaaru euh, tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay tey nuyu mbokku auditeurs yi di leen ziar ci àjjuma ji di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak tirage au sort Ligue des champions amal nañu ko dem ca Istanbul nag ci groupe A bi Ajax bu Amsterdam moo fa nekk bokk ak Liverpool Naples ak Glasgow Rangers groupe B FC Porto Atlético Madrid Bayer Leverkusen ak Club Brugge groupe C Bayern Munich FC Barcelone Inter Milan ak. Victoria Plzen groupe D Hertha Francfort Tottenham Sporting Portugal ak Marseille groupe E Milan AC Chelsea Strasbourg Dinamo Zagreb groupe F Real Madrid Leipzig Shakhtar Donetsk Celtic Glasgow groupe G Man City Séville FC Borussia Dortmund ak FC Copenhague groupe H PSG moo fa Juventus Benfica ak Maccabi Haifa Karim Benzema démb nag moom la ñu tàbb mu nekk meilleur joueur UEFA Carlos Ancelotti nag moom la ñu meilleur entraîneur UEFA euh, ci kanamu Pep Guardiola ak Jurgen Klopp ñetteelu bëccëg euh, Liga espagnol tey lay door Girona mooy laale ak Celta Vigo bu juróom-benn waxtu jotee Betis Séville di laale ak Osasuna ñeenteelu bëccëg Bundesliga Fribourg di laale ak bu juróom-benn waxtu jotee ba teg fanweeri simili ñetteelu bëccëg Calcio italien Monza di laale ak Udinese bu ñeenti waxtu jotee ba teg fanweeri simili Lazio di laale ak Inter Milan bu juróom-benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom ñeenteelu bëccëg laaleek Lille bu juróom-ñaari waxtu jotee éliminatoire mondial basket ñeenteelu fenêtre bi door tey ci ngoon nag ca Abidjan ci groupe E bi ak Monastir ci groupe F bi fa amalee jongante yi nga xamante ne ci diggante fukki équipe ak ñaar yi nga xamante ni ñu ngi xëccoo juróomi tikk yi des ngir dem ca coupe du monde ba Sénégal nekk dina laaleek Soudan du Sud tey bu juróom-ñeenti waxtu jotee ba teg fanweeri simili suba dina laaleek Tunisie bu juróom-benn wax jotee ba teg fanweeri simili jeexalee ko ak Cameroun dimanche bu ñetti waxtu jotee li classement FIFA Sénégal day dese di nekk buur ci Afrique ci classement FIFA bi nga xamante ni nag amal nañu ko démb moo jiitu ci Afrique ba léegi ci àdduna bi mi ngi ci lu toog bi ak juróom-ñett jeexalee ko ak lamb kii di Pape Abdou Fall mi ñuy tuddee nag promoteur des grands événements ginnaaw bi nga xamante ni saison bi dafa jeex rek ci la tànn moom moo fukki fa ak juróom ci weeru janvier atum 2023 ngir amal choc bi war a dox ci diggante Zarko bu Grand mbooloo ak kii di Ada Fass bu Fass Benno Magog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee kenn daay yu li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi juma mubarak li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud lii euh, gën a fës ci euh, yéene kaay yeeg El Hadji euh, Seydina Oumar Cissé. Ah. ahlan bikum Aysata Taal Sàll jëwriñ ji ñu dénk wàllu bitim réew fa xayma bilaawu Macky sàll mi jiite mbootaay réew Afrique yi Le Quotidien yéen a kaay ñu ko xamal bés bi yéen a kaay na ko juróom benn weer la Macky defagum ca bopp Union kenn waaye ay Taal Sàll fa càmbar wax li fi Macky liggéeyagum laas yéen a kaay na ko Aysata kay nee na Macky fa def ay jaloore yu bari ci diplomatie yow seetal Macky dem na fi ca njiiti réew bu ruus ci am na Mali wax colonel Goïta mu bàyyi ñeent fukk ak juróom-ñeent soldat yu réewum Côte d'Ivoire yam teg loxo fexe tamit ba Afrique bokk ci G20 bés bi yéen kaay na ko faala ci yokkal Macky mi ngi défendre ngir Afrique am candidat ca conseil de sécurité bu ONU ñu ne déetawaay fa nar a dem Guinée ak Burkina loolu yëpp lu baax la turbine yéen kaay mel ni ku naan ko li baaxut nag te Macky Sall def ñu ko ñun sénégalais mooy biñ koy fal fa ñoo digoon te lam la ca gën a bëri dara la ca Macky defu yow seetal Macky fa digoon sénégalais yi ne nguur ak Ablaye Wade gi alalu askan wi ñu doon pasar sàcc alalu askan wi su ma faloo faa leen di teg loxo nangu alal ja est ce que loolu def na ko déedéet xanaa Karim Wade ak Tahibou Ndiaye Balde ñii daal lañ fi oo yooyu yaay te gis ngeen fa mujj ñeneen ña sa des nga xam ne ci nguur ak Abdoulaye Wade gi nekkoon yor alal ju lewut fa ñoo dem ne Macky Sall ñun yow la ñuy jàppale léegi Macky au lieu mu nangu suñu alal ji déedéet fa leen jël jox leen ay ndomba tànk ne doxal leen kenn du leen laal yéene bi ne waaye nag Abdou Diouf Abdoulaye Wade defuñ lu gën li Macky Sall def ci lijjanti ñu sàcc alalu réew mi yéene kaay na fa tey Macky Sall njiit réew mi fa ñoo digoon ne suñ ko yoon tëddee njaaxaanaay li ni mel amul yi damoo am ci réew mi ku farak Macky lu la neex defal dara du la ci fekk réforme institutionnelle tamit digoon nañu ko ba tey digoon nañu moom Macky Sall ne dana wàññi dund gu gi te tey la aay réew mi yéen a kaay na ko li waxee dëgg de moo tax fi mu toll ceebu jën sénégalais baa doola bi mën a tut lekk ah jën soble kenn mën a tut koo gis yéen bi na ngir yàlla état bi dimbali leen suñu soxna yi dem marché sonn nañ de keneen ko sonn dëgg mooy Macky Sall njiiti moo ko wër ah dund gu cher na réew mi féppay koom-koom bi askan wi fippu ba pare opposition bi ku jëgi fa ñoo a xam doole le mandat a kaay na seen moom la Macky takk exclusif yéene kaay moom it feelu ko ne Macky kay tiisuma ko mbaaw te ñi ko war a jàppale ci wàllu politique fi mu toll ne xamatuñ gàndaay maanaam askan wi faaleetuñ leen dégluwuñ leen ndax fañ leen jéppi bokk na ca Bamba Fall Cheikh Ba Youssou Ndour waykat Diouf Sarr Moussa Sy Yaxam Mbaye ak ñeneen ñoo xam ne askan fañ leen a suur wan leen ginnaaw te mooy yéene kaay na ko xanaa boog mu jàpp ci Aly Ngouille Ndiaye Mimi ak Amadou Ba ñi de Macky fa cee war a jàngat ndax ko amoon mujj ci benn député nga ëppale ku jëgi loolu du de na xolaat boppam ak doxalinam ndax fi mu nii sénégalais yi yeewi askan wi ak wàllu lañ jox bopp ñi muy jënd nag ñu koy fekki transhumant yi ay Idriss Seck ak yeneen ak yeneen bëriwul njëriñ 24 heures yéen a kaay na ko maa la ko wax de bëriwul njëriñ de ndax askan wi politicien bu fi transhumé fekki Macky fañ lay sanctionné wala ginnaaw waaye changement yooyu ngay wax Macky Sall bàyyeegut ko de fi mu toll nii mi ngi génnee ay millions yu baree baree baree di ko jox député waa PDS ngir ñu dem jàppale ji ko ci assemblée def ni Pape Diop waaye ba mun na pol boppam fi ngund du fi naan a ñeex dara la fi dul xam ba tey ci l'observateur Lamine Thiam àdduna ci candidature Karim Wade ak seen taxawaay ci assemblée ba tey yéene kaay ne waaye nguur gi tamit la dépêche yéene fa gis lu ngeen mës wuute le da nga dem assemblée ngir voté kenn du ko wuute ndax fa ñoo seere diggante nguur gi ak ku jéggi donte fi ñaari wàll yëpp ku nekk ngay jéem a xëcc sa député morom Momar Dieng ne man faay artu Macky kim nar a jiital président assemblée nationale na ko xoolaat de ndax ndama ngi ci gàcce ngi fi ma ko waxee ca source a enquête yi kaay ne député yu bees yi nee fa ñoo nar a ay texte yu bëri ay loi assemblée é waaye fa ñoo xamul na yëf a xamal réew mi yéene kaay moom di ñu xamal ne conseil technique bu Yankhoba Diattara bàyyi na Yankhoba Diattara ak réew mi yëpp wan la gannaaw dem na fekk ji Déthié Fall si du quotidien moom xëy di ñu xamal xiiroo ngaayoo bu dox ci diggante état bu Sénégal ak fonction publique locale bi ah seen salaire dafa ñu bëgg ñu yokkal leen ko yéene kaay bi na acte 3 bi nag moo jaxase carte gi Boubacar Baldé mais est xam ngeen ne benn collectivité jotagut xaalis bi ñu wax léegi ci réseaux sociaux yi bëri ci lool mooy jàpp benn waay dóor ba mu bëgg a dee filmer ko wasaare ko waa Amnesty ak ñeneen ña ngi koy ñaawlu la ñaaw nag te am Sonatel mooy réeroo bu métti diggante liggéeykatu Sonatel ya ak seen kilifa ya Libération moo ñu ko xamal tàggat yaram tirage Ligue des champions Bayern Barça Inter groupe de la mort la ko stade tuddee Real moom su ko neexee reetaan mook Marseille ndax tirage bi fa neex ci ñoom Paris ak Juventus moom it dana saf sunu lamb yéene kaay jox kàddu Pape nekkoon fi entraîneur bul faale nee na sama diggante Mouhamed Ndaw Tyson intaha c'est fini jeex na entreprise du dara mboolam ay niti démbam fa na effacé tey ku ko ci oo téléphone doo ko jot waxuma gis ko écrit bul faale fi mu toll ni fa tas lépp ndax affaire xaalis waaye ëmma seen tamit moo gën a yées Tyson de léeg si ko yéen kaay li ñu xamal na Tafa ak Gris Bordeaux juboo nañ waaye Tafa nee na ko soo daanu Ama Baldé c'est nga bàyyi bëre man ma bàyyi loolu dem ci source a fekk fa ministre Abdourahmane Dabo fa jàppante ak benn policier mu wax Faty Ndiaye fañ koo may jabar doomu na wala doomu nijaayam bu toll ci fukki at ak ñett xale bu jigéen bi kar jata la tudd ay waajurum fañ koo forcé may ko ko ndekete jëkkër ji ñu ko may tuxu yàmbaa moo ci jël pee te su tuxee ba màndi bajj-bajj na tatt fay daanu ca kaw jabar ja di ko mbuqi fa koy dóor toroxal ko gaañ ko ci xanam gu ñaaw xale bu jigéen bi mbir kilaan la bàyyee ko doon sëy jaxaay waaye jëkkër ji takk dere teg nañ ko loxo fañ ko war a atte keneen teg loxo góor jigéen la fañ koo bett ca kastoor moo ko ay xaritam source a bi ñu ko jàppee fa waxal boppam man góor jigéen laa 2004 ba li ci garaaw na mooy la fees dell ak ay fer bim bim muy dox muy kacax kacax yi mu mel ni xab jigéen cam xam nga ne loolu ñaaw na laneen lu ñaaw l'observateur moo ñu ko xamal benn waay daal fa xam jabar gorom bu jigéen seet si leen maanaam yaayu jabaram mu jóg na fa koy siif wéelo ko ba ñu teg ko loxo tëj nañ ko juróomi atu kaso yëf yaa nga amee ca diiwaanu ndar waa ma ne yow nag yaa xëdd kaaba xam jabar ba pare ëlbatiku bëgg ànd ak sa yaay jabar ndey ak doom daal nga bëgg a def aaw ak ñaareel ay waay ndaw sàmba bu la a takk doom ja takkal ndey ja rek bu fekkee nekkul kay di sëy Alaaji Oumar ponk boobee sax nag mooy jeexal xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci wàllum déglu gi jaajëfal Haj Libaas Mbay ci machine bi Mouhamadou Khalili ci partie digitale bi waaye nag ñu fàtte waa rédaction ak waa production ci njàppandal gi way leen di ànd ak sunu ay programme ñaanal nañu leen mucc ak muccule jami bi rek biti tawfeex ak tey siir jaa ngeen jëfati le journal Ngoné Ndiaye